yastafifi du foofu la waaw kay kon aouzu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ñu fas yéene yeggali suratu nuur bi ñu tàmbali woon yàgg na waaye ndogalu yàlla rek ñu dugg ci yeneeni waxtaan moo tax mu yéex waaye incha allah dañ koy yeggali fu mu yem tey incha allah bu àjjuma bii di ñëw ñu yeggali ko moo tax suñu borom ni baada auzu billahi min alshaytaani rajim mu ne wal fifi na woyafal alladina ñeel ña nga xam ne laa yajiduuna amuñu nikaaxan luñ takkee soxna gis nga kon day wane ne société bi ñépp war a am soxna ku ne loo am rek war nga ca am soxna waaw loolu lay firi de waaw ku ne loo am rek war nga ca am soxna waaw wolof moo ko firi nag ku làmbayaatee daagul fañ la nobee waaye boo nobee boromi milliard te nobu la am nga problème hmm? gisoo um faali moom fexe na dem Casamance gis kam bëgg takk ko indi ko yow it demal Saalum boo gisee koo bëgg takk indi waaye gis ku dëkk ci Dakar Plateau nga ne kooku laa bëgg te kooku boromi million lay xaar yaa tooñ sa bopp du noonu waaw kañ yow jigéen tamit noonu bëggal ka la bëgg nobal ka la nopp waaye di yootu borom yi daraja yi nga xam ne ñoom boo leen yóotoo it xooluñu la yaa indi sa bopp lamb du noonu oustaz Sidi Ahmed Mbaye bu Chérif Ibrahima Aïdara Atijani ak Mansour Thiam yal na yàlla fay leen moo tax mu ne wal yastaafifi nay nay muñandiku muñandiku bu ànd ak woyofal nag alladina gaa ñi nga xam ne laa yajidu amuñu nikaaxan luñ takkee soxna xatta ba yugniyahumu mu oomalal leen allahu buur yàlla min fadlihi ci ngénneelam li tax nag li lay woon ne kenn ku ne war nga am soxna mooy fa mu jiitu woon yaakaar naa paase nañ ko de fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allaa taadilu fa waaxida aw ma malakat aymaanuhum bii ci suratul nuur nag mu ne fankixul ayaama minkum wassaalixiina min ibaadikum wa imaa'ikum in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli wallahu waasiun alim du foofu la woon yàlla ne kenn ku ne loo am soxna loo am nañ la ca may soxna lu jafe dégg la nag waaw ah, ñoom ajaa Seexu ka ñii waroon nañ mën a fexe ci société bi gannaaw ñoom mag ñu baax lañ ku ñëw di naan si attaaya sax ñu ne la loo bëgg nga ne soxna ñu ne waaw ñu ne yeggal suuf ñu may la ndax damay faral di wax ne ku dem ci kër ñu utal la boisson jox la te ko kon nag boo duggee ci kër ne diw laa bëgg balaa nga faa génn war nañ la ko mën a may su fekkee diw moo ma bëgg na la ndax boisson bi kenn ñaanu la ko. yaa xam ne teraanga la nga da nga indi ko jox ko ki ci ki nga ki la seet si waaw noonu nga ko defee ci boisson bi nag fexeel ba ki nga xam ne dëgg dëgg nag ah moom la mu la mu la mu bëgg mooy soxna mu ñëw ñaan si ko ah gaawal may ko buñ ci taxawee daal de yàgg waaye société bi daal ku fi nekk war ngaa mën a am soxna yàlla bindul ku warta mën a am soxna bindul ku warta mën a am borom kër allahumma lu dul koo xam ne dafa tële ku tële nag waroo sax uti soxna danga nga war a toog rek jàpp sa njàmbur waaw ku tële ñu bal ma ci waxin wi fokk mu leer mooy ku yoom waaw nit ñi xamuñ déggatuñ wolof léegi booy wax wolof da ngay am problème boo ne tële ñu ne lum tële ci saasi lañ koy firi bu wéree bu wéree sëy bi day tas ci saa si dañ koy firi ci saa si nit mën na ñàkk dépense ñu muñal ko xarum tabaski ñu muñal ko ngénte sax nga amut loo ngéntee ñu muñal la waaye diw dafa yomb tas leen sëy bi loolu la sharia wax de ñoom nag ñoo gën a ñeme yàlla ñëpp ñu baal ma boo xamee ne daf la dal am nga sens yow yàlla libéré na la toogal muñ ba ëllëg yowmal xiyaam nga am ci uru ay niya foofu moom amul télé amul dara alaaxira <laughs> moom télé amu fa de télé fii la yem yàlla ñu ko yàlla defal ndax yonent bi ko wax nee na ki gën a néewi soxna yowmal xiyaam ëllëg ca àjjana ki fa gën a néewi soxna dina am douze mille soxna fukki junniy soxna ak ñaar waaw loolu gañ waxoon nañ ko fi xëy na ko nga ko fekkeewul saydatuna Aïcha moo ko laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu yonent bi day firi alquran nii di wax uru ay na yi ka annahum lu lu lu eh, nu mu ko waxeeti woon waaye alquran waaw kañ ka xuurin am amsaalu ka amsaali lu'luwi lu'luwun maknuun waaw kay ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam di firi sayyidatuna Aïcha da ko laaj ne ko ah, ñun ñii nga wax nii lañ taaroo ne seen bët yi comme nenu bànjooli xam ngeen bànjooli nee seen per yi bët yi noonu la toll ñoom uru na yi ci rëy sallallahu alayhi wasallam la cay ñuul ñuul kukk la cay weex weex di leen décrire di leen décrire ba na Aïcha ne ko waaw ñun nu ñuy mel bu boobaa mu ne ko bu dàq doon am yéen jigéen ñi jullit ñi yéenay dàq uuru ay na yi ndax njeexitu njàpp mi ngeen daan njàpp njeexitu koor njeexitu julli njeexitu naafila njeexitu sarax ak sarax ak yàlla da koy soppi leer dóor ko ci seen xar kanam yi bu dàq doon am yéen jullit ñi yéenay dàq uuru ay na yi sayyidatuna Aïcha ne ko alhamdulillah mu ne ko góor ga fa gën a néew soxna dina am fukki soxna fukki junni soxna ak ñaar mu ne ko ndaw ayee ba tas yonent bi ne ko contexte àddina ak contexte àllaaxira du benn mu ne ko àddina ci ngay ay ayloo waaye àllaaxira ci kenn ngay ay rek yàlla multiplier sa multiplier sa jëmm ci ñépp kenn ku nekk yëg ne yaa ngi ci moom li ngay seq ak ñépp ngay seq ak kenn ku mu mën a doon ci ñëw amul benn différence amul benn xilaaf loolu nag àddina àtte na ko Coupe d'Afrique bi mujjoon am fu mu amee woon Égypte du yéen ñépp a ko doon seetaan ci seen téléviseurs yi ñaata post téléviseur ñoo am ci senegal ak àddina bi wër nga këpp ñi ko doon seetaan te bit ba fa mu duggee ci Égypte ñépp a koy gisandoor à la minute ci defar loolu gëmul sax yàlla moom waaw kon yàlla mi bind jaam yi lu mu war a mën waaw ah, mu nga innahu ala kulli shay'in qadir mu des beneen bi bu gën a garaaw sax bi xaadim laaj yaag sa soxna nekk ngeen fii ba faatu mu faatu buñ demee àjjana du forcé pour yéenay dëkkaat àjjana de dañ koy choisir loo bu fekkee borom këram fii ku bon la woon ci moom bu ko neexee du doon jëkkëram fële de day am beneen jëkkër moo tax ku fi am ku fi am soxna booye boo baax ci moom de man am na ku ma sa ñëw ba ci man ne ma sama jëkkër de maa ngi ñaan yowmal xiyam yàlla bu mu nekk sama jëkkër billaahi wal kitaab ñaari jigéen mos nañ ma ko sama jëkkër ma ne ah mu ne maa ngi ñaan yowmal xiyam àjjana yàlla bu nekk sama borom kër fii nag maa ngi koy suturaal waaye bugguma yowmal xiyam mu nekk sama borom kër xam nga loolu ku ne war na ko moytu te fitnaal nit rek moo koy indi bu boobaa nag dañuy tànn loo ndaw si bu bëggee muy borom këram ñu delloo ko ko bu bëggul ñu seetal ko keneen yonent bi salaay sallam moo wax ni fukki junni yooyu ak ñaar mooy ngeen dimbali ma ci calcul bi 4 4 fois 4 mooy déedéet 3 fois 4 waa kañ bu ne ñetti téeméeri ñetti ñetti junni yi mooy jànq ji deewoon te amuñu jëkkër ñoom lañuy ñuy bu ma ne jànq ji deewoon même liir bi juddu di jigéen te faatu ci la bokk boo liggéey dañ ko day màgg tollu tollook ñépp mu ne ñetti junni yi mooy jànq ji deewoon amuñu borom ñetti junni yi mooy jeeg ji deewoon te amuñu bërëm kër yeneen ñetti junni yi mooy uru ay na la fa yàlla bàyyi te ñooñu ñoo gën a néew yi soxna ëllëg ci bés penc mooy ñi am douze mille am na ñoo xam ne cent vingt quatre mille la ñuy am. àjjana neex na de nañ jaamu yàlla rek jaamu yàlla yóbbuwu fa nit waaye mooy billet bi nga xam ne boo ko amee sañ taxaw ci port bi ne sama billet ngi nii. kon mu ne wal yastaafi fi na mu alladi gaa ñi nga xam ne laa yajiduna amut nikaaxan lum takkee soxna xatta be yugniyahumu mu oomalal ko allahu buur yàlla min fadlihi ci ngëneelam walladina gaa ñi nga xam ne yabtaxuuna ñu ngay sàkku ah, du yabtaxuuna la dee leen ma dimbale de bu ma juumee ngeen wax ma ko bii ma yor bind yi dal sew te dama commencé màggat mu ne walla walladina gaa ñi nga xam ne yabruuna ñu ngay bew yabtaxuuna la waaw kay gis nga alquran masque bi boo koy soppi rek soppi maanaa bi yabtaxuuna ñu ngay sàkku alkitaaba du noonu la walladina gaa ñi nga xam ne yabu yabtaxuuna ñu ngay sàkku alkitaaba mukaataba mooy mbind ku leen bindal mimmaa la nga xam ne maama moom na ko ay aymaanukum seen ndeyjooree ci jaam ak jéebéer mu ne booy ut ku la bindal ka lay bindal nag fakaatibuuhum na leen bind in alimtum bu fekkee xam nañ wala nga ne seede bu la ci neex su fekkee ne in alimtum xam nañ fiihim ca ñoom ña ñuy bind xayran yiw nañ ko bind du noonu ah wa aatuuhum moo ci topp ah. wa aatuuhum nañ leen jox cenn bu dee ku ñuy takk te du jaam jaam kenn du ko takk ba jaam di am léegi jaam amatul wa kaatibu wa wa wa aatuhum nañ leen jox min maalillaahi ci alal ji nga xam ne yàllaa ko moom alladi alal ja nga xam ne aataakum joxef na leen ko moom suñu borom subhanahu wa mu ne wala tukrihu bu leen di forcer wala tukrihuhunna wala tukrihu bu leen forcé fatayaatikum seen jànq ji ah du noonu waaw kay mu ne wala tukrihu bu leen di forcé fatayaatikum seen jànq ji wala seen njeeg ji sax alal biraa ci njaaloo xam nga luy forcé sa doom ci njaalo bokk na ca mu solo ba jekk sol lu bon ne la yaay ma dem te ñëw te mu wóor la ne fa mu jëm baaxul mu ñëw indi la trois cent mille ne la fay ci luyaas fey ci ndox li ci des ngi jaar garder ko pour dépense te mu wóor la ne xëyit wàccut yaa ko tey waaye kon xam nga lu muy liggéey walla déet ok mhm. ah, waaw ko defee nga toog nag di ko tagg moom kañ moo yor kër gi ci lu mu yor kër gi ci lu mu ko yor wala ponkal mu toll ni Sidi Maxtar Kunta salaamualeykum dana ko yàlla dolli wér waaleykum salaam wa rahmatullah ana astu mu ne mu ngi ci biir yi astu yow kaay wuyu Sidi mu ñëw toog ak moom ci saal bi ba mu yàgg ñu ñoqali ci néeg ba loolu yépp xeetu ëfal la yonent bi saay sallam nee na ñoo ñuy duyuus ñooy macro mu ne duyuus nag macro xetu àjjana sax du ko xeeñ yonent bi nee macro makro xetu àjjana sax du ko xeeñ ñu ne ko xetu àjjana nu mu mel mu ne doxu juróomi téeméeri at la cinq cents ans bu xet gi rëccoon nga war a dox cinq cents ans diggante fi nga taxaw ak 500 ans xetu àjjana daf lay xëy leer na mu ne nag du yuus mooy makro nee na xetu àjjana sax du ko xeeñ waxuma ak mu di fa dugg nañ nañ seet li ñuy defar nañ ko seet sa kër ñàkk ko ku fa war a dugg waru faa dugg laaj ko loo fii ut bu dee penda lay seet ne ko bismillah jabar nga bëgg mu ne waaw nga ne ko demal indi xa can ñu may la ko jeex na waaye bàyyi ko muy yëlëng yëlëng yi ci kër bi mel ni xarum tulaabeer yëlëng yëlëng gu amul genn ab amul fulla amul fayda nga di ko seetaan kooku ñakk fayda borom kër la genn borom kër waru ko nangu moo tax mu ne wala tukrihu bu leen di forcer fatayaatikum seen jigéen yi seen jànq ji alal birai ci njaalo inaarut na ndem namm nañ na ñoŋ mooy fekk seen bopp ak aar seen bopp day am de li yàlla wax ni day am am doom bu jigéen nan ko yow su bokkum yow gisuma wenn farawu la fiy seet si yaa ko gën a bon kenn du wax sa doom gisuma farwo wu lay seet si loolu mooy yaa koy poussé ci lu bon yow de xanaa fasoo yéene tekki sa morom yi rek a fiy dem Dubaay sa morom yi rek a fiy dem nangam sa morom yi rek yow day fii ngay toog jant ngoon bi fekkaat la fi loolooy jigéen ju baax ni ngi encouragé suñ doom yu jigéen yi ci ci lu baax waaye moo tax mu ne inaarat na ndem na mu nañ taxassunan fegu yéen ñi koy def nag mu ne defu leen ko lu dul li tabtaru yéen a ngay sàkku aradal xayaati dunya poñetu àddina mii rek ñu di leen gaaral moom ngeen ci sàkku waaw moo ay fayal courant moo may fayal ndox moo ma yóbbu Màkka moo ma yóbbu Dubaay moo ma jëndal oto bi moo ma jëndal lii te wóor na la ne liggéeyul dara mooy poñetu àddina bii rek ñu di leen gaaral moom lañ ci bëgg moo tax moo tax mu ne lii tabtaxu ngir ngeen sàkku aradal xayaati dunya ngir poñetu àddina bii ñu di leen gaaral rek mu ne waman képp koo xam ne yukrihun na forcé nga sa doom bu jigéen ngir mu def naka sa dut noonu fa inna allaha naka buur yàlla fa inna liy dëgg tey dëgg liy mbir tey mbir li wér te wóor mooy allaha buur yàlla min baadi na gannaaw ba ngeen leen forcé ñoom jigéen ñi bañ def naka sedut noonu xafuurun yàlla jéggal na leen ñoom jigéen ñooñu ngeen forcé rahimun yërëm na leen mu des yow mi ko forcé nag yaag yàlla la leer mi ko forcé nag mu des yow yaag yàlla àddina jaru ku ñëw di seet sa doom nga naan ko xaaral mën naa am ku ko gën dëgg la sa doom nag moom it na am ful la ju day ni nag bañ a xool yambar mu ko du jëriñ dara mu dugg ci moom yokkal sa ndey ak sa baay problème jaar jaru ko man de sama waa kër yaa ngi nii di ma dégg dama leen wax ni ku ci tànnal sa bopp wéyal bul ma joytu bul ma bul ñëw ci man di ma wax dara assumer say responsabilité ku bàyyi ma tànnal na la ah ma juum ca tànn ba boo amul dépense ñëwal ma may la bu ñu la génnee luyaas ñëwal ma dimbale la fayal la waaye bul bàyyi jëkkër ji nag téyel rek ma juum ba may la ko bu mu tax nga tas waaye boo tànnalee sa bopp nag assumeel say responsabilité man sama yoon nekku ci moo tax mu ne wala xadd ca dëgg dëgg dëgg anzalna wàcce nañ ilaykum ci yéen ayatin ay aaya ak i tegtal yuy tegtale mubayyinaatin yu leer nañ wa masalan ak i xibaar du masalan moo ci topp waaw wa masalan ak i xibaar min alladina tukkee ci gaañ ñi nga xam ne xalaw weesoon nañ min qablikum lu leen jiitu yéen yàlla ne alxuraan ji nettali naa leen ci ñi paase woon te xamu leen leen woon ndax ñoo leen jiitu wa mawizatan muy waar nag li ma leen di nettali ci maam aadama ak yonent yàlla isa yonent yàlla muusa ñi ma leen di nettali ci ñoom ñépp yàlla ne waar la ci yéen waaye du am jot man yàlla rek di leen nettali seeni xibaar déedéet ne na nekk waar ci yéen maw wa mawizatan muy waar boo xam ne lil muttaqina ñeel na ñi ragal yàlla gis nga ko ragalul yàlla yàlla waxul ci yow dara ndax xam na ne danga koy tardeel yàlla sax du tardé waaye yow sa bopp ngay tardé ndax lu mu gàtt gàtt di nga mës a dajeeg yàlla ci bàmmeel boo dajeeg yàlla ci bàmmeel nag di nga xam ne yàlla julli rek la santaane wa mawizatan muy waar lil muttaqina ñeel ñi ragal yàlla moo tax mu ne allahu buur yàlla su ngeen ko xamut nuuru mooy leeru assamaawaati asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar masalu nuur yi mu ne boo doon misaal leer googu yàlla leer ka mishkaatin fiiha misbaahunil misbaax mu ngi mel ni verre boo jël dugal ca mees boo jël dugal ko ci verre misbaahunil misbaax fii zujjaajatin mu ngi ci weer boo xam ne dafa leer naññ ka annaha mu ngi mel ni kawkabun bidiw bidiw ba ca kaw durriyun bu leer nañ naññ ka annaha kawkabun durriyun mu ne yuuxadu dana ca niitee min shajaratin jóge ci leer ci eh, garab goo xam ne mubaarakatin bu barkeel la ñu koy wax zeytuna mooy olive du noonu zeytun du mooy olive ano saa sidi quoi mooy olive olive dañ ciy génnee luy eh, lu demee ni pétrole loolu la ci jublu te boo ko taalee day tàkk tàkk bi tàkk bi day leer zeytunatin mu ne boo xam ne nag la charqiyatin mu nga jàpp ba ca penku walla garbiyatin ak sow wala xarbiyatin hmm? lu ci topp mu ne yakaadu tuuti ko noonu zeytuha diw ga yudiyu moom diw ga kot mën a leeral walam tam sa su fekk laalu ko anaarun safara mu ne diw ga rek tuuti mu mën a leeral waxuma ak safara si ko taal ah walaw lam hu naarun du noonu kookal la ah haadi eh hafiz waaw kay walaw lam tam sasu naaru walaw mu ne doon ca konoon sax lam tuuti konoon tam sasu laalu ko naarun safara mu ne du tee sax nuurun muy leer ala nuurin ci kaw leer boo xam ne yahdi dana ca jubalee allahu buur yàlla li nuurihi ci leer googu man képp koo xam ne yashaau soob na ko wa yadribu mu ngay misaal allahu buur yàlla al amsaala misaal ya li naasi ñeel nit ñi wa wallaahu moo ci topp wallaahu buur yàlla bi kulli shay'in mbir mu mënti doon alimun ku ko xam la wala nga wala wala nga ne allah wallaahu buur yàlla géej naa ni buur yàlla alimun aji xam la bi kulli shay'in ci mbir mu mën a doon mu ne fii buyutin am na ci néeg yi yoo xam ne usil na digaleef na allahu yàlla an ngir ñu yëkkati fa wa ñuy sàbbal fiiha ci néeg yooyu ismuhu turam wi mooy jàkka yi di ko wéetal yoo xam ne yu sabbixu dana sàbbal lahu ñeel ko moom suñu borom fiiha ci néeg yooyu bil xudu wi ci ngoon bil xudu wi ci suba wala asaali ak ngoon ah loolu di tiijaan yi am nañ ci yoon xanaa ah ah yaakaar naa tiijaan yi am nañ ci yoon wasifa suba ngoon nagu ah waaw waaw sëñ asan salaam waaw wallaay dëgg la sëñ asan salaam maa ko xam ca Jurbel mm, jërëjëf xaadim maa ko xam bu baax ci Jurbel la dëkkoon doon borom kashfu bu rëy rëy rëy kañ booy defi musiba bul ñëw ci kanamam de laa ilaha illallah léeg patron ñëw mu wax ko loo xam ne da ngay fëgg say dàll di daw waaw léeg sëriñ ñëw mu wax ko loo xam ne bu sëriñ ba àndoon ak i taalibeem dana taaliba yi foofu la ñuy jaar ñibbi suñu asan salaam ku doy waar la woon te simple nag daan na ñëw Dakar lu bari imaam imaam Yuusufa Saar bii may defal xat euh, kii Isra wal ci Tëngéej daan na dal këram xam na ko bu baax sax moo tax mu ne bil xudu wi ci suba waxtu suba wal asaali ak ngoon mu ne te ña koy def nag rijaalun ay góor lañ yoo xam ne ah leer na defe na damay bañ a rek waaye bii de tijaan yi bari nañ ci wàll de hmm? waaw mu ne rijaalun ay góor lañ yoo xam ne ña koy def di tudd yàlla suba ngoon rijaalun ay góor lañ yoo xam ne laa tulhihim itteelu leen tijaaratun commerce wala bayun du caageen yaxantu ah xam nga magasaa ngi nii day xëy yor kalandoom waaye balaa dem ca kalandoo ba fokk mu bàcc ci jàkk ji ba yaram yu tàng mu door a xëy ah Mamadul Xaafis a ngi noonu balaa dem marché fokk mu bàcc ba yaram wi tàng ma dikkee ngi noonu balaa dem biroom fokk mu bàcc ba yaram wi tàng Yaxya Jóob retraité na <laughs> waaye ba balaa dem nele mu bàcc ba yaram wi tàng ndax loolu la ko Sëriñ Mansuur borom daara yi sant du noonu waaw kañ moo tax mu ne leen laa tulhihim itteelu leen tijaaratun commerce bay on du caagan am zikrillaahi walis tudd yàlla dañ koy def ba noppi door a defi loola wa iqaami salaati tey taxawal julli ah leer na de mu ngi gën a leer de ah wa ita wa iqaami salaati tey taxawal julli wa itaayi zakaati tey joxe azaka buñ ko amee ñoom ñii li tax ñuy def lii yépp yaxaafuuna dañoo ragal yow man bés boo xam ne tataqallabu dana ca wëlbatiku fii ca bés ba alqulubu xol yi wal absaaru ak bët yi mooy yowmal xiyaam waaw ah, kon tijaan yi góorgóorlu leen de am ngeen junj bu rëy ci alxuraan waaw ah, yàlla nee na dara taxul ñu di ko def ndax yowmal xiyaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ñu dekkee di nga gis ñoo xam ne seen xol yi day baatal naan pët gis nga nit fii bu tiitee rek ah docteur waaw kañ gis nga fii bu nit tiitee rek dangay gis cardiaque bi day day accéléré ndax dafa tiit yowmal xiyaam nag ci lay gën a garaawee mu ne dangay gis ñu ne xujj seen bët yi xulli ko seen bët yi di seen xol yi di fat-fati ndax tiit ci la yàlla waxee ne sax dinga gis jigéen bu ëmboon rek wasin ci si te fekk ëmb bu ndaw la mu ne di nga gis ku ku dekki rek day jaaw ci si ndax tiit waaw yow man xëy am raglu de mu ne nag ñii nga xam ne dañuy nekk ci jàkk yi di tudd yàlla suba ngoon dañoo ragal bés boobu moo tax ñu di ko def waaye duñ ca yem nag dañuy taxawal julli su ñamee azaka génnee ko waaw yow man bés boo xam ne daf ko bañ ba tanwin ko tataqallabu dana ca wëlbatikoo fiihi ca bés ba alxulubu xol ya walla abasaaru ak gis yi muy bët yi lu tax li ji li yajziyahum ngir na leen fay allahu buur yàlla axsana gën caa rafet maa la nga xam ne amilu jëfe woon nañ ko ci àddina benn fukk wala téeméer wala juróom-ñaar téeméer wala lu soob yàlla fay la benn waaye ku def benn mu ne minimum la la yàlla dafay mooy fukk léeg mu dóoral la téeméer léeg-léeg mu dóoral la 700 wala lu ko neex yal nañ bokk ca ña ña muy jox la ko neex ndax sept cent sax moom tuuti na ci ñun ñun ñii nga xam ne borom bi bàkkaar yu ngand yi lañ yenu sept cent sax tuuti na ci ñun yal nañu boole ci ña nga xam ne moom ca la ko neex rek lay tibb jox leen te du xool yal nañu ko yàlla defal moo tax mu ne wa yaziduhum yàlla moo baax mu ne wa yaziduhum dana leen dolli bu leen fayee ba noppi wa yaziduhum dana leen dolli moom yàlla moom buur yàlla min fadlihi ci ngëneelam ya nga xam ne du jeex ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu buur yàlla yarzuqu mooy wërsëg mooy wërsëgal man képp koo xam ne yashaau soob na ko bi xeyri xisaabin bi xeyri xisaabin ci lu dut mu sonn yàlla na ñu ko yàlla defal wallaahu buur yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man ka nga xam ne yashaau moo ko soob moom yàlla mu wërsëgal mu wërsëgal ko bi xeyri xisaabin ci lu dul mu di ko regle walla benn coono yàlla nañu ko yàlla defal mu ne walladina gaañ nga xam ne nag foofu la walladina gaañ nga xam ne kafaru dañoo weddi amaaluhum seen jëf ya ka saraabin biqiatin mu ngi mel ni Euh, pour tënk ko bañ ñu ko yàgg fi xam nga nu mel mu ne seen jëf bu naaj bi tàngee comme nii nga dox di dox ci goudron bi dooy gis mu mel ni ndoxataa ci sa kanam nuñ tudd càll mbeer déedéet bokk la càll mbeer la mooy loolu di wëlbatiku ñunux ñunux tudd ak ah, mooy ngelaw loolu di tourner ñunux nag bu naaj bi tàngee jir da dox mel ni da ngay séen taataa ndox ci kanam ci goudron yi lay faral di am wala fu doon kekk ak yooyu boo doxee ba yegg si fa doo gis dara naaj bee tàng rek yàlla nee na yéefar yi seen jëf noonu la mel waaw nee na seen jëf ñu nox la rek danga koy séen muy niru dara te du dara bi qiiatin yaxsabu ñu ngay jortu ne zamaanu ndox la ndax mar guñ mar bu ñi maa un maa an ndox xatta ba nga xam ne zamaanu zamaanun mooy mar gu tar lañ mar boole ca nag yaakaar ne ndox lañ seen ca kanam maa an ndox xatta ba nga xam ne isaa jaahu buñ dikkee ba foofa ñu seen lam yajid lam yajidhu duñ ko fa fekkati ndox mañ doon ba doon ñu ndox mañ doon gis dootuñ ko gis ñu prolongé waat te boo xoolaatee ca kanam gis ko yàlla ne na noonu la ñuy dëkkee rek ñu nox la ñuy gis rek di avancer benn yàlla tam biir jahannama yan ci yàlla musa moo tax mu ne lam yajidhu shay'an duñ fa fekk daara lam yajidhu duñ fekk foofale ca ñu nox ma shay'an dara wa wajada nag fekk na allahu bur yàlla indahu fa moom ah lu ci topp ah mu ne wallaahu waj wa wajada fekk nañ allahu bur yàlla indahu fa moom fa wafaahu mu fay leen xisaabahu mu rek ah du noonu ah fa fa wafaahu mu matale xisaabahu rek ga fay leen lañu def te du leen tooñ kuy def dafa lu baax de waaye yàlla moom am na fayda ju day ni benn bu bon benn bu bon la lay fay waaye nam la koy fayee mooy garaaw parce que dañ koy peser bàkkaar bi ni mu toll rek noonu lañ la di nga gis ku bàkkaaram toll ni jabalu óot la ko mu yenn ko rek di daanu di jóg di daanu di jóg di daanu yenn ci yàlla musal mu ne lu tax wallaahu buur yàlla sariicul xisaab yi moo gaaw ci rek la jaamam yi gis nga li jaam yi di bari bari diggante suba mooy huit heures du matin huit heures matin diggante huit heures du matin ba midi lay àtte jaam ñépp nit ak jinne wala diggante midi ak jant wala diggante tàkkusaan ak jant bu so ñaar yooyu rek la wax nañ ne du ko ëpp huit matin ba midi ku ne di nga xam fooy féete wala bu ko neexee mu bàyyi ba tàkkusaan balaa jant di soo mu réglé ñépp ku ci nekk xam foo féete moo tax wallahu sariul xisaab yàlla gaaw na muy réglé xam nga lu tax atu àllaaxira mooy konte foofu atu àddina dootul konte inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudun benn bés ca yàlla atu yàlla yooyu mooy konte bu boobaa mooy mille ci ñun waaw kon Milan douze heures de temps ñaata la fa bu dee ci suñu at yi ay at la ah waaw ah, yéen ñi war mën mathématique war ngeen ko mën a calculer ah cinq cents ans mu nga douze de temps cinq cents ans la <laughs> yàlla mën te gaaw nu muy régler la duñ fa yàgg xamoo yow man xam duñ fa yàgg affaire bi leer nañ day day ñi ñuy mbalax ñu mbalax leen ñi ñuy muuraake ñu jox leen seen muuraake ñu wéy waaw yal na yàlla boole ci ñi ñuy jox muuraake yi waaw lu ci topp mu ne aw wala boo kazulumaatin mu ngi mel ni lëndëm goo xam ne fii baax baxrin yaa ngi ci biir géej lu ji yén gu xóot géej gu xóot yaxshaahu muur na ko moom waaje ca biir géej maw jun ay vague min fawqihi tukkee ca kawam encore maw jun ay vague <laughs> yàlla mën a wax ah, ah? mu ne aw wala boo ka zulumaatin mu ngi mel ni lëndëm goo xam ni yëfër lay wax bu dekkee yow mal xiyam na muy mel moom fa mu nekk ci lëndëm loolu la yàlla di misaal du gis dara ñun buñ dekkee xam nga lu tax ñuy gis nuuru liimaan mooy leeru gëm yàlla ak jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla moo tax bu ci kenn xeeb dara ak njàpp mi ñuy njàpp julli yi ñuy julli naafila yi ñuy naafila wax yu baax yi ñuy wax jëf yu baax yi ñuy jëf sarax yi ñuy génne azaka yi ñuy génne moom la yàlla di soppi ay leer def ko ci suñ jëf moo tax nga dégg yéefar yi naan unzuruna naqtabis min nuurikum qiila rji'u waraakum faltabisu nuuran moo tax buñ dekkee jullit ñi buñ dekkee rek seen jëy yi day mel ni projecteur comme lii Omar dëpp ma nii bu ko gën a leer lay doon waaye la ci gën a yéeme yow rek lay niital ku dendeeg yow nu mën a mel du ci niitu bu ko defee yéefar yi phase bañ nekkee dafa lëndëm moom la yàlla di misaal nag lëndamaay ba comprendre ngeen léegi ñoom yéefar yi phase bañ nekkee nag dafay lëndëm kiriis gis lëndëm googa nag moom la yàlla di misaal nii mu ne aw mu nga wala boog mu ngi mel ni ka zulumaatin lëndëm joo xam ne fii baxrin ci biir géej nga nekk lu ji yéen gu xóot nekk ci biir géej rek doy na yàlla nee na gu xóot encore nee na yemoo ca géej gu xóot ga rek déedéet yaxshaahu mu muur ko maw jun ay vague mu ne min fawqihi nekk na ca kaw vague yooya mawjun yeneeni vague waaw kooku nu mu mawjun yeneeni vague min fawqihi min fawqihi mawjun dégg ngeen wax bi mu ne dangay nekk ci biir géej gu xóot ay vague nekk ci koom vague yooyu yeneeni vague nekk ci koom muy ñaari vague pareegul de mu ne min fawqihi nekkaat ci kaw deuxième vague boobu saxaabun ay niir <laughs> ah saxaabun ay niir yàlla mën lu ci topp niir yoo xam ne du niir yi ñuy gis de niir yi sax xam nga leer na day bëlëk weex a ko yooyu déedéet yàlla ne niir goo xam ne zulumaatun lëndëm lay doon niiru lëndëm gis ngeen bu bëggee taw yenn taw yi gis ngeen noonu muy xiine bi ñuul kukk du gis ngeen ko yàlla ne bu ko gën a ñuul nag mooy nekk ci kaw mu ne baaduha ci lenn ci fawqa baadin ay ay ay ay ay ay niir yu lëndëm ci kaw niir yu lëndëm ñoo koy ñoo leen di wër encore zulumaatun baaduha fawqa baadin yàlla ne lii nag xool leen ndax neex na wala neexul lu mu ci teg mu ne isa jamono boo xamee ne axraja génnee na yaddahu loxoom lam yàkkat tuuti ko noonu yaraaxaa sax du ko gis mu ne du xaw sax du gis loxo ba mu ne bu yëkkati woon loxoom sax du xam fu loxo bi toll du ko gis lam yàkkat yàlla ne déglu leen ma man maa mën a wax te maa leen di wax de wa man képp koo xam ne lam yajaali defaluma ko allahu man buur yàlla lahu ñeel ko nuural leer foofa fa maa lahu deet di ko déet di ko ñeel min nóorin génn ko leer leeru bàmmeel rek doy na sëkk lëndëmu bàmmeel rek doy na sëkk bu la neexee nga misaale ko ci bàmmeel ñu ne la yëntim ci biir bàmmeel doy na doyut sëkk ñu jël suuf wàccee ci sa kow beneen lëndëm ñëw jant bi so nag armeel yaa nga ne la crise wala de ba guddi gi sedd nag yàlla ne wa man la meejal képp koo xam ne defalu la allahu buur yàlla lahu ñeel ko moom nuuran leer foofa fa maa lahu déet di ko ñeel min nuurin ci genn leer mu ne alam tara xanaa gisoo an allaha naka buur yàlla yu sabbixu dana sàbbaal lahu ñeel ko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 man sa man buur yàlla lépp may sàbbal du noonu yu sabbihu lahu maa fi man gis nga man ak maa du benn man ismu mawsulun du noonu lu tax li aqilin maa boo ko déggee rek lañ koy wax amut xel moo tax mu ne man fi samawaati bale mu ne maa fi samawaati alam tara mu ne xanaa xooloo yéen bu ngeen ma sàbbaalut duma ma saf yàllaay wax ak ñun de maa leen bind bu ngeen ma sàbbaalut yéen oustaz eh, Kamal yàlla ne du ma saf <laughs> imam Sëñ yàlla ne boo ko sàbbaalut du ko saf ñu ne ko lu tax mu ne alam tara xanaa gisu leen ne wala xanaa xamu leen ne an na laa naka buur yàlla bu la neexee nga ne an na liy mbir tey mbir an na li wér te wóor mooy allah buur yàlla yu sabbihu dana ko sàbbal lahu ñeel ko moom yàlla sàbbal ga man képp koo xam ne fi samawaati mu ngi ci asamaan yi juróom-ñaar wal ardi ak suuf yi juróom-ñaar hmm? kullun moo ci toog ah? maa fi samawaati wa maa fi ard waaw kañ wa tayru mu ne xanaa xamoo picc yi sax kullun kenn ku nekk ci ñoom picc yi xat ca dëgg-dëgg li ngeen di ñàkk fayda xamu leen ni picc yi sax dëgg dëgg dëgg dëgg kenn ku nekk ci ñoom alima xam na salaatuhu julleem bu heure ba jotee mu def ko wa ak sàbbaal may sàbbaal xam na ko bu heure ba jotee mu def ko picc yi sax yàlla nee na xam nañ picc yi foofu yàlla ak ñuy sous-estimer wan ne bu ngeen ñàkkee fayda ba fàttee ma picc yi ñoom fàttewuñ ma te yaay jàpp ci picc yi kutt lakk ba mu ba mu neex nga yéey lakk sa picc du yéen a ko yàlla ne yaa ngi lakk sa picc picc maa la gën nga picc maa ngi may sàbbal bi nga koy rendi ak bi nga koy lakk ak bi nga koy yéey yépp mu ngi may sàbbal yow nag fàtte nga ma bu yëgg boo tëddee di xaral ah maa la ko wax de mu ne wa picc yi saafaatin ñu nga sàppe xooloo picc yi bu ñuy naaw léeg-léeg dañuy def sax démonstration yu rafet yàlla mën ñu yàlla yooyu yëpp ñun lay jàngal waaw mu ne wa picc yi saafaatin ñu nga sàppe kullun kenn ku nekk ca ñoom picc yooya xat ca dëgg dëgg dëgg alima xam na salaatuhu julli gi muy julli ci man wa tasbiixahu xam na sàbbaal gi muy sàbbaal ci man ñu ne ko lu tax mu ne wallaahu buur yàlla alimun moo xam bi maa ca la nga xam ne yafaaluuna yéen a ngi koy jëfe yàlla ne xam naa ko du noonu Seydi Dia mu ne wallaahu du noonu ah? mu ne walillaahi ñeel na yàlla aji sax la moom yàlla ñeel ko walillaahi aji sax la ñeel ko moom yàlla walillaahi aji sax la ñeel ko xam nga lu tax nga ne aji sax la ñeel lam cay teg a tax mulku nguur moo tax da nga koy firee walillaahi aji sax la ñeel ko xam nga ku dul yàlla nguur saxut ci yow moo tax ñeelu la leer na ku dul yàlla nguur saxut ci yow moo tax ñeelu la ana Senghor ana Abdou Diouf ana Ablaye Wade kii fi nekk léegi yàggatut insha allah ana Pompidou ana George Bush ana Mitterrand ana Jacques ana Sarkozy Macron mi yàggatut ana Bill Clinton Bush père Bush fils Trump bii fi nekk yàggatul ana Faysal ana Assane II ñii fi nekk yàggatul saxul ci seen loxo moo tax mu ne walillaahi aji sax la ba noppi ñeel ko ay <laughs> eh, alxuraan neex ñu ne ko lu tax lu mu sax te ñeel ko mu ne mul ku nguur nguur goo xam ne nguuru samawaati asamaan yi juróom-ñaar wal ard ak suuf yi juróom-ñaar yàlla ne na nguur googu yépp maa ko moom wa ilallaahi du foofu la jëm na ca yàlla almasiiru mujj yépp wa ilallaahi jëm na fa yàlla almasiiru mujj yi mujj yépp ci yàlla la jëm ñii ma fi tudd te nekkatuñ fi anañu seen mujj yépp ca yàlla la ñun ñëpp suñu mujj ci yàlla la alamtara moo ci topp mu ne alamtara xanaa gisuloo walla alamtara xanaa xamuloo ne an na alamtara xanaa xamuloo ne an allaha naka yàlla yus jii mooy dawal saxaaban niir yi su ma yuallifuhu mu aj ko <laughs> man nag bii moo ma gën a jaaxal yàlla lim bind yëpp jaaxal na ma waaye niir a ci gën a jaaxal summa yuallifuhu mu aj ko lu ci topp tawba taw taw la ci jublu taw ba yaxruju mu ngay génn min xilaalihi ca tame ya wa yunazilu mooy wàccee min asamaai jógee ci asamaan min jibaalin ci ay doj mooy dënnu yi bu ko yàlla soobee bu soobee yàlla nag dënnu yooyu mooy ku tonnerre lu noonu lañ koy wax kañ moo tax tubaab yi tamit jaan jàmbaar lañ de anti nu ngi koy waxee paratonnerre yi waaw da koy capter ba pare sànni ko ci géej gi non tubaab yi yàlla may na leen noo xam-xam moo neex moo tax ñëpp war a am xam-xam xam-xam dafa neex bu soobee yàlla nag daf koy bàyyi fu dal mu xam moo tax mu ne yaxruju dana génn min xilaalihi ci tame ya moom taw bi wa yunazilu mu wàccee min asamaa yi jóge ci asamaan min jibaalin tukkee ci ay doj fiiha nekk na ca doj ya min baradin ay safara fa bu boo xam ne dana laal bihi ci doj ya man képp koo xam ne yashaau soob na ko wa yasrifu dana ko musal an wolis man ka nga xam ne yashaau soob na ko léeg nga dégg koñ ne dënnoo daan ci kawam daanu ci kawam du dëgg am na fi bu yàggul rek ci Parcelles Assainies yi déet wala déet waaw ah, kay yàlla ne man la soob mu bàyyi dënn bi mu daanu ci seen kaw mu ne ña mucc man yàlla man la soob ñu mucc su ko neexoon dënn yi naan putt putt putt putt kenn du mucc comme ay bomb loolu lay jàngale dafa ne su ma neexoon dënn yu soppeeku ay bomb di putti putti ci seen kaw te du ngeen ci man dara waaye fu mu wàcc man la neex ñam laalut maa leen musal mu ne yakaadu tuuti ko noonu sanaa barqihi mellax ga yëzhabu mu jëlee fa bil absaar seen gisi bët yi xam nga am na mellax yoo xam ne bu ne tey boo gëmmul rek yow boo moytul say bët du ko fekk yàlla yàlla day wane kattanam nee loolu yépp man yàlla la mu ne tuuti ko noon melax yi yóbbu seen bët seen gisi bët yi bil absar moo tax mu ne nag bu leen sonn bu mooy wëlbati allahu yàlla layla guddi wa nahaara def ko muy bëccëg wala mu jël guddi jël bëccëg génnee ci guddi jël guddi génnee ci bëccëg yàlla ne man la ay heure yu gàtt ci gannaaw yaakaar naa 16 heures rek ñu ngi woon ci bëccëg jant bi ne fàng du dëgg léegi jant ba na mu dem na ñu ngi ci guddi fii ak tuuti ay waxtu rek jant bi génnaat ñu nekkaat ci bëccëg yàlla ne kooku loolu kenn mënu ko kuddut man yuqallibu may woy wëlbati mooy wëlbati allahu bur yàlla allayla guddi wa nahaara ak bëccëg na ca dëgg-dëgg fii zalika nekk na ci wëlbati googu la ibratan waar li ulil albaab ñeel li ulil yi gis yi yàlla ni kuy gis gis yaa ngi woon ci bëccëg tuuti nga nekk ci guddi nga nekk ci guddi nelaw yeewu nekkaat ci bëccëg yàlla ne boo amee xel tey gis di nga xam ne man yàlla ko am kàttan la ndax doo yëg fu bii di demee doo yëg fu bii di ñëwee moo tax mu ne la ibratan waar la li ulil absar ñeel borom gis-gis yi mu ne wallaahu yàlla bu leen di wax yàlla de wallaahu buur yàlla xalaxa moo bind kulla daabatin mboolem luy dukkat mboolem luy dukkat rek yàlla ne maa ko bind mënal maa ci ndox yàlla ne loo gis ca beneen mu ne wa xalaqa min minal maa i kulla shay'in xayyin afala tazakkarun yàlla ne luy bind luy dund rek ci ndox laa ko bind moo tax ndox am solo ci nit gis nga dafa bàyyi taw rek ñëw ci ni mu bindee nit wane ne cosaanal nit ndox la bépp doole ci nit nag mooy cosaanal nit nekk nekk ndox ci lay ëpp njëriñ bu dee maanaam euh, bu dee xam nga dangay ngay nekk cosaanu ndox ba noppi nag yàlla boole la ci catégorie bu ko neex mooy almaa yi alhawaa yi ak turaab yi annaar yi ñeent yi rekk moo am anasilul arba ñuy def lasraar buñ lay xool léeg-léeg dañuy xool ndax yow ci ndox nga bokk walla ci suuf nga bokk wala ci ci ngelaw nga bokk wala ci safara nga bokk am na de lasraar lu wér la bu ko kenn xeeb lasraar lu wér la waaye nag kenn du ko def micc lu wér la nag nit bu dee hawaa ku bari wax lay doon te du wax lu am njëriñ su dee naar yi ku bari ay lay doon nit boo ko xoolee muy hawaa ku bari wax lay doon te fenkat lay doon boo ko xoolee muy naar yi ku bari ay lay doon fu safara tàkkee mu nga fa fu ay amee moo ko sos bu dee turaa bii moom toujours kuy féete suuf rek lay doon almaa yi moo gën ci yépp nag ni ndox amee njëriñ noonu lay amee njëriñ ci lépp boo ko xoolee muy nitu ndox foofu moom xamal ni kilifa lay doon mhm, kenn mënu ko nekk tey nekk kilifa moo gën ci xool yi nag maa yi waaw leen di laaye biir rek leen di laaye biir rek ndeysaan waaw ñii lasaraar dañ leen di laaye biir rek xam naa ni xam nañ ko sax waaye te nit mën na nekk turaab yi nga def intervention ci yàlla ba mu nekk maa yi mooy tarbiya lay tarbiya parce que turaabi bi du cosaanam ndogalu yàlla la ci moom te man ki ko dogal mën nga ko ñaan mu dindi ko xalifa sàll bii ku signé mu génn Macky sàll su ko neexoon suba mu signé waat mu dugg ak nu mu ko neexee rek bu ko neexoon suba mu delluwaat ci kaso tey président am na sañ-sañ xool ku ko neex ne procureur jàppal ma ko 24 heures damay xool ay mbiram dëgg la wala du dëgg am na ci plein droit te dara du ko ci fekk man damay joxe exemple bi le président de la république Macky Sall am na droit tey seet ku ko neex ne procureur seetal ma ko ñu defal ma ko garde à vue damay seet ay mbiram loi may na ko ko te ñun loi boobu ñun ñoo ko voté nga ne amut ci yàlla yàlla am ay awliya om yoo xam ne buñ ko nee tiin ma ci diw mu tiin ko ci moo tax nga dégg sëriñ Babacar si toog ci Tiwaawoon ne na li muy bon bon bon bon buñ demoon ba ca kanamu yàlla ëllëg ma ne yàlla tiin ma ci moom mu baal ko hmm? loolu la xalawaat yi loolu lay jëriñ ñaan yi loolu lay jëriñ da ngay xam ne nit kii turaa bii la ngay ñaan di ñaan ba yàlla def ko muy maa yi wala nga tarbiye ko ci yàlla ba mu soppi ko def ko muy maa yi ah nuurun ala nuuri kon nag yahdi laahu li nuurihi man yasha ma dikkee <laughs> yaa waxoon tafsir bi de waaw jeex na daanaka de saar wi ñu yeggale ko la ñu bàyyi ba beneen yoon jeex na nañ ko yeggali waay bu ko defee àjjuma bii di ñëw ñu jël Cerno Yaxya li incha allah hmm? jeex na ba pare bu ko defee àjjuma bii di ñëw incha allah ñu jël Cerno Yaxya li waxtaan ci moom ci kàttanu yàlla incha allah kon àjjuma bii di ñëw Cerno Yaxya ci moom la ñuy waxtaan su ko defee nag. yooyooy tardeel nag sama tafsir yi ma ci dugal ak bëgg mu gën a nit ñi jëriñu rek loolu laa ci jublu parce que ki toog itam yor lasraar di ko appliquer war na caa am njëriñ parce que xaraamul nag xaraamul waaye na fexe mu dagan rek nit ku nekk la ngay liggéey mën na xaraam mën na dagan ah nit ku ne la ngay liggéey mën nga ci dagan mën na xaraam mën na dagan parce que yaa cay def lu xaraam fekk xaraamul lasraar lu baax la ndax dina fekk nit ci guuta gu bër setut mu génnee ko dugal ko ci bër bu set wecc kon laxdar baax na waaye ka cay defee leneen nag fekk ñaar ñuy ànd mu tàqale seen diggante kooka loolu baaxul ah, lii rek la waaye laxdar baax dara newu ci dara newu ci ko rab jàpp muy say di daanu nga ñaanal ko ba ya bàyyi ko loolu baaxul loolu laxdar la koy def wala nitu yàlla rek jeex na du noonu kon lasaraat baax na moo tax yii rek moo am anasil al anasil arba ñeent yi maa yi turaabi naari hawaa yi ndox suuf ngelaw ak safara nit ki boo ko xoolee muy ngelaw ku mën a fen lay doon te du wax lu am njëriñ te ku bari wax lay doon boo ko xoolee muy turaab yi toujours day féete suuf rek yan ci yàlla musa boo ko xoolee muy naar yi nitu ay lay doon fu safara tàkkee loxo ma nga ci biir te du def jàmm boo ko xoolee nag muy maa yi ku am njëriñ lay doon borom daraja lay doon moo tax yuqallibu mooy soppandi moom yàlla allahu buur yàlla alay la guddi wa nahara ak bëccëg inna fi daalika nekk na ci tegtal loolu le la ibratan waar li ulil absaar ñeel borom gis yi wallahu buur yàlla xalaqa moo bind kulla daabatin lépp luy dukkat minal min maa in tukkeekoo ci ndox fa minhum am na ci ñoom ñooñu ma bind man yàlla ci ndox man ñoo xam ne yamshi dañuy dox ala batnihi ci seen biir comme jaan pour ñu gaaw jaan biiram lay doxe luy doxee ni jaan di doxe rek moo moom ala batnihi dégg wax mu ne am na ñoo xam ne dañuy dox ak seen biir mu ne wa minhum am na ci ñoom man ñoo xam ne yamshi dañuy yox ala arba'in ci ñeenti tànk fas ak nag ak xar ak béy ala astafirlah wa minhum am na ci ñoom man ñoo xam ne yamshi dañuy dox ji lay ni ci ñaari tànk loolu moom nit dong ko am jinne sax du doxee ñaari tànk jinne ni bàyyi ma di doxee lay doxee noonu lay lekkee nit rek moo am kàttanu dox ak ñaari tànk di tibb di lekk ba jinne li muy bari bari kàttan ak doole gémmiñ lay lekke te ñeenti tànk la yor jinne amul ñaari tànk ah jinne amul ñaari tànk ñeenti tànk la ñeenti tànk la jinne am ñu xamuñ sax luy jinne moo tax muy faral di niru bàyyi ma nga gis ko muy niroog fas gis ko muy niroog mbaam gis ko muy niroog xaj parce que ñeenti tànk la am loolu la gën a mën a niro jinne mënta tëb rek niroog nit nit ku mu jël meloom rek kooku saay-saay la moo tax boo gëntee Sëriñ Tuubaa wala Cheikh na Cheikh Saad Bou wala Maam Alaaji Maalik wala Cheikhu na Tijaani moom la ndax jinne mënu ko jël yegg nañ fi yàlla foo xam ne jinne mënu leen niru noo leen gëntee rek ñoom la moo tax mu ne man am na ci ñoom ñoo xam ne yam yamshi dañuy dox lay rijlayni ak ñaari tànk mooy nit nit rekk ko ko am foofu moom dangay ngay préciser nit dong ngay doxee ak ñaari tànk mu ne wa am na ci ñoom man ñoo xam ne yamshi dañuy doxee wa minhum am na ci ñoom man ñoo xam ne yamshi dañuy doxe ala arba'in ci ñeenti tànk fas xar béy nag gëlëm xaj ak jinne ñu ne ko lu tax mu ne yaxluqu moo bind allahu buur yàlla maa la nga xam ne yashaaw moo ko soob mu bind ko inna allaha naka buur yàlla inna ca dëgg dëgg dëgg allaha buur yàlla ala kulli shay'in mbir moom mën a doon ci def ak dindi xadirun ku ko attan wala nga ne inna ca dëgg dëgg mbir tey mbir li wérte wóor mooy allahu buur yàlla xadirun aji attan la a doon ala kulli shay'in ci mbir moom mën a doon ku ko attan la ci def ak dindi yàlla amul limite amul frontière mu ne laqad ca dëgg-dëgg anzal naa wàccee nañ aayaatin ay aaya mubayyinaatin yu leer nañ wallaahu buur yàlla yahdi mooy jubal mooy gindi man ka nga xam ne yashaaw moo ko soob yàlla nañ ci bokk ilaa siraatin jëmee leen ci yoon woo xam ne mustaqiman bu ne mustaqimin bu ne coow la yàlla nañ ca bokk wa mu ngay wax naan am na ñuy wax ne aman naa gëm nañ billaahi ci buur yàlla wa bi rasuuli géñ nañ ne gëm nañu yónnent bi waataan naa topp nañ su ma topp nag tawallaa ñu dëddu wax nañ ko ci seen gémmiñ ba noppi waaye bu ñuy joxe gannaaw génn ci fariqun am na ci kuréel minhum ci ñoom min baadi zalika gannaaw loolu du la wa ma ulaika déet muy ñeel bil na ci jullit ñi jullit moom bokk ci jullit lu mu wax loolu lay def du ne waaw ne déet du clignoter gauche jàdd droite jullit lu mu wax loolu lay def yàlla ne koo gis muy wax lu mu dul def di clignoter gauche jàdd droite wala jàdd clignoter droite jàdd gauche yàlla ne bokkul ci jullit ñi wa iza jamono boo xam ne du wooyeef nga ilallaahi jëm ci yàlla wa rasulihi ak ndawam li li yaxkuma ngir nga atte baynahum seen diggante isa fariqun lu dul kuréel minhum ci ñoom mu'riduna ñu dëddu bari na nag tey xam nga noo koy firi sëy bii bañ koy takk ca jàkka ja lañ ko takkee takkee ko ci sharia ñu dem ba boroom kër gi faatu ñu war a miraas doom yi lank ne tribunal ndax lan boo demee tribunal ñëpp ay yemle te bu dee fii ci lislaam góor ñaar jigéen benn nga ne non tribunal ñooñu la yàlla di waxal te ak a bari léegi ci miraas yi néew na léegi miraas mu ñuy miraas ci lislaam yépp tribunal rek lañ koy yóbbu ndax ñu mu arrangé wul rek ñu ne tribunal a ah, baax na ba ëllëg li yaxkuma bayna naas baynahum ngir nga àtte isaa fariqun ak kuréel minhum ci ñoom muriduna ñu dëdd lànk wa in yakun su fekkee lahum ñeen na leen alxaqu dëgg yaatu ñu dikk ilayhi fi moom mu muz'iniina di omat maanaam buñ yaakaaree ne seen intérêt ci lislaam la nekk ñu ñëw ci lislaam buñ yaakaaree ne seen intérêt tribunal la nekk ñu dem tribunal yàlla ne afi qulubihim ndax dafa nekk ci seen xol yi maradun feebar maradun naafeq lay firi fii mu ne afi qulubihim ndax dafa nekk fi qulubihim ci seen xol yi maradun doyadik pas-pas ak naafeq moo tax ñu di ko def parce que bu la arrangé rek nga ñëw ci lislaam bu la arrangé wut nga dem tribunal amirtaabu wala ñuy sikki sàkka am yaxaafuuna wala ñu ragal an yaxiifa allahu alayhim ragal ya dajeeg yàlla ëllëg de wa rasuluhu ak yonentam ulaayik bal li fi nekk ulaayika ñii hum ñoom azaalimuuna ñooy tooñkat ya innama ca dëgg-dëgg kaana nekk na xawlal muminina waxu jullit ñi isa waxtu woo xamee du woyef nga leen ilallahi jëm ca yàlla wa ak ndawam bi li yaxkuma ngir nga atte baynahum ci seen diggante an yaqulu dañuy wax naan sami'na dégg nañ wa topp nañ wa ulaayika suñ borom nee na ñii hum ñoom am almuflixuuna ñooy ñii texe ëllëg ñoom xooluñu intere wa man képp koo xam ne yuti i topp na allaha buur yàlla wa rasuluhu wa rasulahu ak ndawam wi wa yaxsha mu ragal allah buur yàlla wa yii mu bàyyi ko xel yaxsha mooy ragal wa yattaqihi mooy bàyyi ko xel yàlla na ñi ragal yàlla te bàyyi ko xel fa ulaayika ñii hum ñoom alfaaizuuna ñooy ñii texe ëllëg yàlla na ñu ci yàlla boole wa aqsamu ñu ngay géñ billaahi ci buur yàlla ne ay aymaanihim dëgg-dëggi géñ la in ca dëgg-dëgg amartanaa amartahum soo leen digalee la yaxrujanna daañu génn qul wax leen ne neel qul neel laa tuqsimu bu leen géñ taatun ak topp maarufun bu jekk du ngeen ko def gis nga foo fekk géñkat piir fenkat la